institut Hikmatul Yawmi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk fii Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 77 712 44 71 ci ñi bëgg a bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci sunu yaakaar Serigne Touba Xaadimu Rasul te mu aju ci lettre boobu yi nga xam ne ne Cheikh Mouhamadul Mountakha waxoon na ne lu mat a yaatal la ndax ñu jariñoo ko te muy denkaan yi Serigne Touba dénkoon Murid Saadix ya guddi gi mujj fanaanee Jolof ngir war a jëm si njaareem te muy yoo xam ne nii jullit bu ne war na koo dégg te settantal ko rawatina képp ku yaakaar Serigne Touba bokk na ci lam leen dénk keroog ci guddi ga ne leen juróom benn gi yoo xam ne ku ko bëgg faaw nga def juróom benn ku bëgg a jege yàlla ci yenn nay jàng alquranul karim ku bëgg a mucc ci mbëggalum mbàmmeel nay julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku bëgg a am ba dootul ñàkk lum am na ko delloo yàlla suñ borom mi ko ko joxoon ku bëgg a mucc bu muy tooñ kuy tooñ du mucc te kenn mënu koo musal ku bëgg a noppalu bu muy fayu tooñ kuy fayu du noppalu te kenn mënu koo noppal ku bëgg àndandoo nay jaar ci yoon ku jaar ci yoon da nga dab nit mbaa nit dab la te ngeen xam ne yaar rekk fi nekk muy yoon wi ak ñal wi ku jaarul si yoon wi ku ne yaa ngi ci ñal wi ñal wi nga xam ne nag li ëpp ci nit ñi ci lañ jaar laa leen bëgg wax fa muy mujj ak ka ci jaar te wàcc ko ku jaar ci ku jaar ci ñal de danga dox ba sonn te doo jotub dëkk mbaa nga weesub dëkk di wéy te ñal waa ko waral pakk dana la fil dig dana la jam doo for dara loo réer la it kenn du ko for di la ko jox kenn du la dabit di la yóbbaale dégg ngeen ko ñu ne waaw nu ñuy yaroog nu ñuy yoreeg njaboot bala ngeen caa àgg nee ñu sëñ Muxtaar Penda Jang sànni caabi yam yoroon dal yooxu ne ko loolu de mbàkke xamee nañ ci ne daanoo yoreeg njaboot mu ne waa waaye bu ngeen ca àggee ku ci yilif lu mat fukk mbaa lu ko ëpp jëm kaw xëy woo leen digal leen la nga leen war a digal te yàlla rekk tax tere leen la leen war a tere te yàlla rekk tax juróom-ñeent ñëpp gànt ko kenn rek jëfe ko ca bu ko xeebee sa bopp jàpp na yaa kilifa bu leen ko yedde jàpp na ñoo matul surga sante ko yàlla sa borom mi la bind bind leen te tënewula ci ñoom ndax wama xalaqtul jinna wal sa illa li ya'budun la wax te ba mu ko waxee mënoon naa dagg aw yat gàll ku jàdd ca ku jàdd yoone mu tegaat la ca te defu ko dañoo lànk di ko moy te mën na koo faj kem ter fatalaay ni te defu ko te moo leen bind sàkk leen moom leen te yow bindoo leen sàkkoo leen moomoo leen dañ laa sagal rek jiital la ci ñoom kon muñ gi ci seen borom am nangeen ko ci am dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne ñëw leen ma wax leen nu ñuy yoree jigéen bala ngeen koo yor ndax jigéen dafa yor ñeenti jikko yu tax mu naqaree yor waaye da leen ja da ngeen leen di jàppee gone yu gaaw a màgg yeneen ngeen yor ñeenti jikko yu tax ngeen mën leen a yor danaa leen leeral lépp incha allah daal ne ana yent jikko yu jigéen yor ba tax mu naqaree yor jigéen dalay tooñ njëkk laa mer du la yërëm du la gërëm ana yent jikko yi ngeen war a yor li ngeen yi ngeen war a yor ba tax ngeen mën leen a yor jigéen danga nga koy mënal njëkk di ko muñal tey jëlale tey jéggale te nga xam ne li nga def ci moom bañ jox la ko boo defoon fukkam ca càmmiñam la ci kër ga duñ la ko jox kon dee tax ñu jox la ko euh, te ngeen bàyyi kuñ ci joxati jigéen mu jàpp ne ab jaamam la duñ seeni jaam jaami yàlla lañ dañ leen dañ leen a boole ngir ngeen di jaamu yàlla ci dëgg kon lu ngeen leen digal na fekk ngeen jiitu ca lu ngeen leen di tere na fekk ngeen bàyyi ko te tooñ gu ñu leen tooñ lu mu rëy rek nangeen leen ko jéggal ndax yéen a ngi tooñ seen borom lu ko ëpp te teewut mu leen di jéggal te nu ngeen leen ëppee doole yàlla ëppee na leen doole na ko raw te teewut mu leen di jéggal kon njéggal gi leen seen borom di jéggal na ngeen leen ko jéggal dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne euh, bisimilah bañ bëgg a jóg mu ne euh, dikk leen bu ngeen gisee ma leen fu ma toll di leen digal lu baax bëgg ngeen nekk ca di leen tere lu bon bëgg ngeen bàyyi ko day def ne lu baax boo ca nekkee sax ca lu la safaan jege lu mu rëy rëy rëy rëy jërut tiit jërut ragal jërut muslu taxoo koo jóg kon yii ci ndénkaane Sëriñ Tuubaa la bokkoon ci guddi gi mu jafanaane jolof ngir jëm si jaareem kon nañu koy jëfee yàlla na suñu borom defal ak dégg ak topp ñoo ngi soññaat mbokki julli yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci liggéey waa daara Hikmatul Yawmi waaye rawatina siyaara bi ñuy waajal siyaara ju ak Cheikh Mouhamadou Mountakha hafisahullah la dimanche le 9 mille vingt képp ku bokk ci association Hikmatul Yawmi wala nga bokk ci groupe yi wala foo mën a bokk te bëgg caa dem na nga teel a joxe sa tur ak sa numéro ñu bind la ndax dañoo bëgg xam ñuy dem bala ñoo àgg ndax mandarga yi ñuy wut ñu xam nu muy toll incha allah uh, képp koo xam ne yaa ngi ci daara Hikmatul Yawmi it ni ma ko waxee démb ñoo ngi sàkk boo mënee dem ak boo mënta dem rek lu ci nekk.